auzu billahi min ashaytaan irrajim bismillahi arrahmaan irrahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi leen di ndokkeel di leen balaax ci koor gi baal nañ leen yàlla yàlla boo leen di jéggal del soir ak gént yi beneen bunt ci firi gént comme ni ñu ko baaxoo di def tey di ñëw ci gént yi gént di jooy li ngay njëkk jàpp mooy génte di jooy masoon naa ci def vidéo nag danaa gis sax ci <laughs> commentaire yi euh, ñiy faral di commenter ne dañuy répéter des fois vidéo yi ma xam ne ni ñuy seetaanee du noonu maanaam nekkul ne benn nit laay defal vidéo dama may abonné yu bees euh, des fois dama am ay questions yu dellusi daf may permettre ma defaraat vidéo wala question yi tax ma am yu ma ci yokkaat maanaam ngeen baal ma rek nit ñuy liggéey nun euh, xam nañ ko daal dégg nga Euh, boo bàyyi sa yitte di ma di ma topp pour ma firil sa gént sa parce que da mënul boo mënoon euh, doo ma yaakaar ci ma firil la euh, moo tax il faut it nga may ma maanaam kenn du wax ni ki lay jàngal ne ko nii nga may jàngalee <laughs> loolu kenn mësu koo dégg ba tax na kon ñu ñu suivre démarche bi ma nekk rek maa ngi ci logique boo xam ne bëgg naa daal ni ma ko waxee bu ma dee yàlla may li ma bëgg mën naa am dootuma am jot ci def vidéo yi moo tax may reyante def maximum des vidéos maximum de de leeral leeral yoo xam ne nit koo xam ne da nga gént doo ma même boo ma gisul boo amul sama numéro yàlla tere même bu ma fi jóge woon da nga mën a am sa sa sa sa réponse ngeen bàyyi ma rek ci démarche bi ma nekk incha allah dana baaxal liggéey bi teewul nag oh, wax ku am ay critique wala reproche mën nañ ko def mais li may bañ rek mooy ne ma nii nga ñuy jàngalee wala nii nga may jàngalee ngeen baal ma euh, voilà bu ko defee jooy defoon naa ci vidéo boo paree nga tàppee vidéo bi ma defoon ci jooy ak bii est-ce que même parole la même wax yi la da xam nan la ñuy firee gént di jooy euh, dañuy njëkk càmbar ndax jooy yi dafa ànd ak son maanaam dafa am comme kuy jooy ba yëkkat walla kuy jooy ba yuux loolu li ngay jàpp baaxul ci gént ak anam bu mu mën a ñëwee jooy fu mu génnee ay son fu mu amee euh, yuuxu walla mu am yëkkat baaxul loolu kon laajatul ab détail bi laaj tey mooy jooy yoo xam ne amul son walla jooy yoo xam ne danga am ay ronqañ yu génn ci yow par exemple mun nga yëg ni yaa ngi jooy jooy yu xol mais sa rongoñ génnul ci gént wala yaa ngi jooy jooy xol yu ànd ak rongoñ euh, loolu benn la ñaareel bi place bi ngay jooyee des fois maanaam jooy dafa amee ci jàkk jooy dafa am ci jàngal Qur'an jooy dafa am ci ñaan jooy dafa am ci dëj jooy dafa am ci faatu jooy dafa am ci lu la naqari ba tax ngay jooy situation yooyu yëpp dafay déterminer dafay firi gént gi léegi su yooyu leerañ ma ñëw ci yow mi ko gént yow la kan da nga am jëkkër amoo jëkkër da nga am soxna amoo soxna da nga mës a sëy mësoo sëy yooyu la li nga njëkk a jàpp jooy ci gént su fekkee jooy yi amul son ak quatre-vingt-dix-huit pour cent baax na ci gént jooy ci réalité ñaar dana ko def mbégte dana ko def naqar dana ko def maanaam kontaan ba jooy wala bég ba jooy ci réalité waxuma gént mais fu mu nekkee ci gént rek jooy bu amul son ñaari ak quatre-vingt-dix pour cent bi lay doon dafay ñëw naqar wuy génn ci yow rempla bànneex remplacé ko ñu doog ñëw ci firi bi suuf ko nag jooy yi àgg foo xam ne dafa ànd ak metti ba sa dënn bi nga yëg ne mi ngi naan tëf tëf tëf tëf jooy tar ba jéggi dayoo bu boobaa mu baaxul ñaar dafay firi euh, problème wala jafe-jafe sa diggante ak sa frère wala kenn ci sa famille jàppante bu dëgër boo xam ne mën naa mujj ci ñëpp ciy jàpp pour mu rafetaat maanaam li ngay jàpp coow ak ku la jege lay firi Euh, da nga yëg ni yaa ngi jooy bi ngay jooy da nga sol yére yu ñuul yére yi nga sol couleur bi dafa ñuul ngay jooy moo tax toujours ma leen di wax bàyyi leen ma ci sama démarche gis nga couleuru yére bi nga sol léegi dafay firi gént gi ñaar da ci am ku mel ni imaamu Nablusi imaamu Nablusi dafa bokk ci ñi ñuy référé woo pour di firi gént yi borom xam-xam bu mag la ci wàllu gént mu dafa day firi njàqare su couleur bi ñuulee waaye imam ibnu sirin moom daf ne déedéet jooy couleur bu ñuul day firi njàqare xat-xat yu dëdd ci yow kon ñaari wax am na ci bu ci gën a wér loolu duma leen àtte ay nit bu la rawee ci xam-xam mënu leen àtte foo nga tiim leen dégg euh, da gént di jooy euh, dangay ngay déglu alquran bay jooy alxuraan da nga koy déglu ñu koy jàng ba soro nga ñuy tuur su boobaa jooy bi bu amee son ak bu amul son ñoo ci yam baax na ci gént tey firi problème yuy dañ walla mucc ci lu baaxul walla ñaan lu nangu ci yow yooyu lay firi te baax na ci gént parce que gis nga gént di jooy ni muy firee problème yu dañ njàqare yu dañ léeg noonu lay firee yàlla dimbale la nga nekk nit koo xam nit ku fonk sa diine nga nit ku bëgg jàmm yàlla nga léeg jooy dana ko loolu nekk ci dina far faral di tax ngay gént jooy xale bu jigéen amu koo ci kër gént di jooy jooy yu tar te amul son dana firi coono àdduna yu jeex wala problème yu jeex jooy c'est parce que ki ngay jooy néew la bu faatu dafa am ku faatu maanaam xale bu jigéen nga da ngaa gént ñu tàggeel na diw faatu na wala nga gént gis diw mu faatu ba ngay jooy ci biir gént gi moom mi nga gént mu gaañu moomul gént gi yow yaa ko mu yow mi ko gént lan lay firi soññ la ci yow ci nga bàyyi bàkkaar dem tuub maanaam da ngaa nekk nit koo xam ne da ngay faral di sonn da nga da faral di caaxaan lu bari ñu soññ la ci nga wattu caaxaan te dem tuubal yàlla jaamu ji ko yal nañu yàlla musal ci bàkkaar euh, xale bu jigéen ak ku mën a doon sax loolu ñoo ko bokk yom maanaam gént gis nit koo xam ne xam nga ne kee diw la muy jooy jooy ya amul son ba tey day firi nit kookee mën na laa amal njëriñ lool maanaam njëriñ lu am solo jógee ci moom ñëw ci yaw ci gàttal jigéen ji ëmb jooy baaxul ci moom ku ëmb gént di jooy mu am son ak mu ñàkk am son ñooyam day fi di coono yu metti ci sa ëmb baaxul ci gént waaye amul benn rapport ak ñàkk li nga ëmb déedéet ëmb ba mën naa bëri coono rek waa kay waaye yàlla ku leer ëmb sax gaa coono la baaxoo waaye <laughs> waa kay jigéen nga walla góor nga am nga soxna nga gént di jooy jooy ci góor dana firi xéewal dana firi wërsëgu yaatu dana firi problème yu dañ dañu firi place liggéeyukaay bu baax walla yokkute ci liggéey góor gu am soxna ci charte mu bañ a am soxna célibataire bu góor gént di jooy day firi soxna ci yow maanaam day firi am soxna ci lu yàggul góor gu mën a doon mooy bu am soxna ak bu amul soxna ñoo yam da nga gént ñu wax la diw faatu na ba ngay jooy ci biir gént gi yàgg jigéen bokk leen ci àtte góor li muy firi ci moom day firi rëccu lu mu def maanaam nga def dara mbir moom nekk loo xam ne tôt ou tard danga ko rëccu ci sa dund loolu day firi walla nga ñàkk dara loo xam ne daf ñàkk mbir ma dafa cher ci yow lool te chaque jour mu lay mu lay rattraper di la dab dabal ci suuf nu nga koy fàttaliku ala kulli xaalin loolu lay firi ci góor euh, jigéen bu am boroom kër jooy ci yow day firi problème ak xat-xat ak njàqare yu dañ léeg bu fekkoon da nga nekk nit ku am tolof-tolof ci wàllu dund maanaam ci wàllu koom dafay firi loolee yàlla da lay dimbala mu jeex tàkk indi la xéewal ba sa dund yomb da gént gis sa jëkkër muy jooy ci góor ci jigéen bu amul bu am boroom kër walla góor gu am soxna nga gis sa soxna muy jooy yéen ñaar jigéen boo géntee gis sa borom kër muy jooy ñaar lay firi benn ëmb ci yow léeg mu bañ laa concerné day firi yokkute ci sa borom kër ci wàllu liggéeyam góor gént gis sa soxna muy jooy jooy yaa amul son ci chart day firi ëmb ci sa soxna wala moom mu nekk yaa ko moom di firi yokkute ci sa liggéey alaa kulli xaal baax na ci gént jigéen nga nga gént ay xale yu bari di jooy nga wër la di jooy moo xam say doom la moo xam ay xale day firi njàqareek tolof tolof ak xat-xat yuy dañ mu des jooy yoo xam ne nag danga nga gént di jooy nga gis ne daal sa ay rongañ day wàcc sa sa sa kanam rek mu am ñu daal ñoo xam ne ba bu ñu yeewoo sax dangay gis ne seen kanam gi ay rongañ nañ ci kanam gi day tooy day am ci gént lan lay firi balaa ñuy ñëw ñu ngi leen di présenter càngat yi képp koo xam ne da nekk di liggéey sa liggéey laaj ubbeeku surtout ngay def commerce surtout ngay def commerce wala koo xam ne da bëgg am ubbeekaay lu dëgër jàng nga pare bëgg am liggéey maanaam ci gàttal bëgg ubbeeku daal ak foo mën a nekk fexeel nga jokkoo ñun ñu defar la càngat yi càngat bii. képp koo xam ne jot ngaa jëflante ak ñun ba ñu jox la ko xam nga li ci nekk incha allah ku ko soxla ma ngeen jokkoo ak ñun ci numéro yi bii beneen càngat la aussi képp koo xam ne da ngaa am problème rab moo la jàpp di la sonal di la indil jafe-jafe ci sëy indi la maanaam ci jigéen ba pour nga am jëkkër jafe wala pour nga am doom jafe walla góor nga am soxna da laa jafe wala rab sonal la ba lay daaneel wala liggéey da laa jàpp. mbaa cat moo la topp di la yàqal fexeel jokkoo ak ñun nga am càngat gi defe naa càngat yi am na ñu ñu jëflanteel ñu ko jot am foo mën nekk mën nga jokkoo ak ñun ci suñu numéro yi defe naa moom jafeetul ñëpp am nañ sama numéro léegi. jooy yu am rongañ dana firi xabaar bu neex dana firi xéewal dana firi problème yu jeex maanaam li ngay jàpp jooy yu am rongañ baax na koo xam ne dalaa fekk nga ami bor day firi yàlla mën na laa defal xéewal say bor nga fay ko xale bu jigéen bu amul jëkkër gént gis sa jooy ba say ronqañ jigéen day firi jëkkër ci yow jigéen bu amul jëkkër góor gu am soxna walla bu amul soxna gént di jooy ba say ronqañ jigéen day firi alal yu bari xéewal ak mbégteeg bànneex ci yow jigéen gu nekk ci néegu sëy gént di jooy ba say ronqañ ci tuuru baax na day firi mucc ci problème surtout problème problème mu sëy baax na ci gént jigéen ji ëmb jooy ba say ronqaj di génn day firi am doom ci lu yàggul nga jàpp kon li ma doon wax sànq te ginnaaw li naa la jigéen ji ëmb gént di jooy baaxul dana firi coono ji sa ëmb waaye bu dee da ngaa sentir say génn day firi lu yàggul dara yàlla mën na laa may doom ci lu bariwul coono jigéen bu mas a sëy ba jógee ci sëy walla jigéen goo xam ne sa borom kër dafa génn àdduna gént di jooy bu dee ki borom këram génn àdduna day firi salaaxul xaal maanaam day firi e, stabilité day firi dal day firi jàmm ci moom di firi xéewal bu dee jigéen ju mas a sëy ba tas gént di jooy ba say ronk jigéen la plupart day firi delluwaat fa nga doon sëyee ala kulli xaalin e, yëpp na nga jàpp ne jooy bu amul son jooy fu mu amee son baaxul ci gént incha ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.